monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di nuyu sénégalais yëpp. yow yaay ministre bu ñu dénk wàllum xëy ak emploi yor itam les relations avec les institutions ci gouvernement bu Ousmane Sonko monsieur le ministre déjà ban impression nga am ginnaaw ba nga amee yëgee nomination bi nga xam ne tey denk nañ la ndomba tànk bi ni mel. waaw euh, maa ngi koy jot euh, comme ni ko ñëpp jotee certes euh, ak formalité yi ci war avant nomination yi may profito di gërëm sénégalais yëpp mais di gërëm monsieur son excellence le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre monsieur Ousmane Sonko pour confiance ak kóolute bi nga xam ne jox nañ ma ko. ñu am yaakaar it ma mun ma mun leen gunge ci euh, liggéey bi nga xam ne moom la ñu war a taba samp pour Sénégal euh, waaw man sentiment bi ma ci amoon ñun ñëpp boo seetloo te defe naa déggoowuñu ko du lu ñu waxtaane mais lu déggu la si ñun euh, amul euphorie outre parce que ñëpp xam nañ ne fu Sénégal toll ak fu ñu jógee ba lii yëpp taxaw Euh, ñëpp xam nañ ne ku mel ni président Bassirou Diomaye ak rigueur bu ñu ko xamee ku mel ni Ousmane président euh, monsieur le premier ministre Ousmane Sonko ak euh, rigueur bu ñu ko xamee parce que ñoom ñëpp moo ñu fàttali ne homme politique jaar-jaar ak discours donc nekk seen jëwriñ il faut que nga am conscience ne ni ko tubaab waxee ab sacerdoce la ab sas la woo xam ne kenn ku ci nekk war nga bàyyi xel ne. du nguuru euh, moo tax it jàppuñu ko comme lu ñu lu ñu lu impossible wala loo xam ne def moo tax amul mumbaay amul dara humilité ngeen ci wane ko loolu lu am solo la lu am solo la te humilité mu ngi door ci euh, lii waaj a ñëw tuddee ko passation de service euh, may ñaax ñëpp ñoo xam ne samay am di jàmm lañ ni lii Euh, dañ ko war a joxe euh, ci nu mu gën a yombee xam ne amul xumbaay amul bumbaay ni ko président euh, Bassirou Diomaye Faye defee ci passation de pouvoir am noonu lañ ko fas yéene defee ci passation de service yi quelque personne qu'il faut les pers quelques personnes ñu jox ñu lenge yi ñu jublu ci liggéey. kañ lañ mën a xaarani passation bi. waaw ah ñu ngi koy xaarandi ci ci semaine bi euh, premier ministre tey lay def dosan euh, ñoo ngi xaar suñu passation ci diggu semaine bi euh, parce que c'est l'IGE qui l'organise. d'accord. ak suñu naataango yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy joxe la maanaam dànkaafu la daal ci militants yeeg sympathisants yi ngir ñu xam ni lu nara amul mumbaay la nara doone ci jokkalante lenge yi ndax continuité la. lu am solo la lu am solo la euh, continuité de l'état la donte rupture moom euh, dafay am ci doxalin wa waaw te ñu xam ne sénégalais yi sonn nañ ñun on nous sommes ñu xam ne yaakaar gi rëy na nous en sommes conscients moo tax yu mel ni nga jot mbir mi ci dal euh, par parloo ak euh, xumbaay bu ci xajut euh, bañ ci am moy li gën a rafet. mooy li gëna daal euh, baax ci weeru sell yi dina baax ñu defee ko noonu. d'accord euh, monsieur le ministre liggéey ak li nga xam ni moo jëm ci wutam liggéeyu ndaw ñi euh, loolu lañ la dénk alors déjà rek est-ce que déjà yow xam nga li lay xaar ci li nga xam ni itam moo jëm ci wàllum xëy euh, est-ce que xam nga li lay xaar. li may xaar xam naa ko lu ñuy xaar xam nañ ko waaye di may tey ñu bañ a dugg ci hôtel bi ndax. ku jotagul lenge yi munoo taxaw di wax nit ñi euh, lii ak lii ak lii la ñuy def président de la mooy mmh. définir politique de la nation euh, ñun dañ fi nekk pour wéyal ak mettre en œuvre euh, politique bu ñu définir gën koo taxawal gën koo ñoŋal gën koo defaral ba fépp fu mu joxoñ ñu fexe ba sénégalais yi foor a jublu jublu ci ku nekk boo ko defee ci domaine am di nga gis sénégalais yi yëpp ay jublu fi président de république ak premier ministre joxoñ loolooy suñu taxawaay euh, moo tax euh, mënuma dugg ci fond bi ci yi ma jotawul mhm. li may wax daal mu ngi ci préalable yi mbébét bi bi nga xam ne euh, ñi nga kii nga xam ne sénégal sénégalais moom lañ fal ak moom ku mu wóolu dénk ko nekk jëwriñ bankaasu gouvernement bi ñoon seeni ndax wax borom kër euh, euh, waaw la sant. Mhm. waaw donc moo tax it. Euh, sànq junjoon nga ko junjoon nga ko sànq immigration irrégulière gis nañ ndaw ñi itam niko ko ndaw ñi jëlee li ni mel boo ko gisee mooy ñàkkum xëy ci dëkk bi. dëgg la moo tax it boobu it mënuma ci xuus lool waaye it mën nañu nañ ma nangul ne sama portefeuille ministériel. dafa am impact bu am solo lool ci wàllu woowu ndax lien de causalité ñàkkum xëy bi ak euh, décision ñu bëri euh, dem immigration clandestine clandestine dafa def ci def ci am solo waaw mu mu des euh, yu bëri yoo xam ne xëy na buñ jotee ci lenge yi dinañ jéem a def discernement parce que xëy na immigration maanaam feuille de route bi daal voilà du ñëpp xëy na ñiy dem ñoo ñàkk liggéey am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne am na liggéey bi gën ba ba tax mu bàyyi bi mu bi mu jàppoon fii dem yooyu yëpp bu ñu jotee ci mbir mi dinañu xool ba doog a mën a wax ak nit ñi en liaison bien sûr avec euh, mon collègue en charge de la question ou mes en charge la question et notamment également les secrétaires d'État en charge beneen bi mooy euh, travail ku ne travail syndicaliste ngay wax ay ñaxtu yu dul jeex daanaka bëri na fi revendication yi euh, un dialogue franc bi nga xam ni war nga liggéey ñoom ci loolu. waaw euh, moo man man man damay profité gërëm parce que man li ngeen lu ñu bëri xamul mooy man je suis du milieu syndical. Euh, ba tey ni may wax ak yow. Mhm. je suis le secretaire général du syndicat de la BICIS. ah oui. donc di euh, cadre foofu donc euh, di nekk tamit membre du bureau national du SUDBEF mooy benn syndicat bi nga xam ne mooy syndicat bu ëmb banques yi yëpp hmm, syndicat boo xam ne du def bruit mais syndicat la boo xam ne bu efficace bu am ay moyen mais comme la profession bancaire le vaut du ñu def bruit bu bëri mais dañuy régler yu bëri. donc euh, ba tax na du milieu boo xam ne qui m'est étranger euh, waaye dama jàpp ne euh, bu ñuy wax dialogue du guleet ñun ñuy doo ko dialogue mais rupture bi war a war na mën a aaju ci dialogue franc ndax bu ngeen xoolee monsieur le premier ministre lu mu junj. Mhm. dafa mës a bëgg nitu dialogue la mais balaa muy wax dialogue moom toujours la notion de franchise def ko daf ko yëg trop euh, bëgg na lu lu munte nekk nga waxante nit ki dëgg euh, ndax euh, boo waxul nit dëgg mu niroog dil wala nga jël engagement yoo xam ne doo ko mën a respecté muy jur leneen je pense que xëy na loolu da ko jarut mais syndicaliste dañoo bëgg ku leen fonk dañoo bëgg ku leen déglu dañoo bëgg ku ubbi bunt bi dañoo bëgg ku nangoo toog ak ñoom di xalaat parce que ñoom ils sont là pour donner des solutions mhm. ils ne sont pas là toujours que pour demander des choses euh, moo tax it euh, xëy na bu ñu jëlee liggéey euh, dinañ ci mu gën a mën a xuus pour le moment le dialogue franc et fructueux moo war a nekk suñu sacerdoce. d' accord moo war a nekk seen sacerdoce alors monsieur le ministre yow itam Pastef nga bokk yaay président conseil départemental bu Bignona premier ministre comme ni nga ko waxee ultimatum la leen may benn weer yow pare nga pour démissionner conseil départemental bu Bignona. Euh, loolu euh, wax ko pare na mu mel ni nga ne géeju <laughs> géeju parcelle bi am na ndox <laughs> ndax. Euh, Euh, engagement la boo xam ne dëgg la amul loi bu wax ne li ak lii ak lii mais engagement boo xam ne euh, ñun balaa ñuy jot ci nguur euh, jëloon nañ ko dans le cadre de notre engagement politique waaw muy loo xam ne Sénégal bëri na compétence bari goo xam ne toog fi yow rek nga jàpp ne ba dul man du baax nax sa bopp weesut lool benn. Euh, mbir nag boo ci buggee soobu ak lu compétence ak lu fonction gouvernementale toll nga bëgg ci yóbbaale yenn yi euh, vous risquez d'être moyen bon partout loolu waral c'est rien que sur ce principe là beneen bi monsieur le premier ministre euh, monsieur Ousmane Sonko rappelé na ko keroog ci discours am amul leneen lu dul keneen mënul xalaat leneen lu dul wéy ci ak def ko nu mu gën a rafetee mm-hmm. man moom euh, yàgg naa nekk un partisan de non cumul euh, parce que gëwuma cumul. di nga waxtaan ak waa Bignona ci décision bi nga xam ni tey euh, bëgg nga ko jël. Ah, waxtaan moom foofu mu am parce que non seulement yoon dafa dafa tënk ngay waxtaan ak sa membre collectivité moo xam ci session nga koy def moo xam. ci compte rendu annuel bi nga xam ne code des collectivités territoriales wax na da ngay war a def bilan annuel euh, ñun ba léegi respecté nañ ko ci ñaari at yu ñu fa nekkee euh, xëy na dañoo communiqué wul ci yu bëri te wax dëgg yàlla euh, man dina ma neex trop mu jàkkaarloog sama askan waxtaan ndax deux ans et demi laa def foofu waaye jot naa ne jàpp naa ne def naa bilan boo xam ne. xëy na euh, boo cumuler les sept ans euh, en deux ans d' exercice bilan bi ma leen jox euh, sept ans d' exercice weesu. lan lañ ci mën a jàpp ci bilan bi. bu ma ko commencé lim dina. dina bëri trop parce maa ngi lànk. balaa may fi ma toll nii lancé naa Abignona. Euh, mën naa jàpp ñaari mbir ñaari mbir yoo xam ne. oui la collectivité nu ko nu ko loi Sénégal binde ak pratique bi. ñoom dañ leen jox budget pour ñu fonctionner pratiquement uniquement pour le fonctionnement parce que collectivité territoriale mooy conseil départemental amul ressource propre maanaam amul fiscalité boo xam ne comme commune mën na ko dem levé ji ay taxe ay marché ak yooyu ay juuti amul donc état moo lay perfusion moo lay def perfusion ni ma koy waxee moo lay pompe li la état di jox daa nekk day yem ci fonctionnement say ay salaire après tu te demandes lan lan mooy njëriñam ci ko ci askan wi ndax collectivité bu amul investissement investissement mooy li nga xam ne da nga koy delloo askan wi si seen jumtuwaay ci seen i école si seeni i hôpitaux si seeni i euh, centres sociaux et cetera boo amul loo fay defee yow ñu lay fay weer woy xëy après njëriñu population duñ ko xam moo tax bu ñu ñëwee ñu jàpp ne luñ fa fekkoon mooy soixante dix pour cent budget bi dañ koy yóbbu ci fonctionnement maanaam salaire yi trente pour cent moom mooy dugg ci investissement ma ne dañ koy inversé. il faut qu'on arrive à dire 70% en investissement et 20 pour cent en fonctionnement te tey jii may wax ak yow foofu lañ toll. d'accord benn investissement yi nag mooy nga def arbitrage yu baax a baax a baax a baax tey maa ngi lancé huit chantiers yoo xam ne benn bi inauguré naa ko bu ma nee chantier du ab projet bi nga xam ne da nga non financement yëpp c'est acquis les appels d'offres sont faits. les contrats sont immatriculés à la direction des marchés chantier yooyu yu am solo la wàllu éducation maa ngi lancé le chantier de la réfection du lycée Aoun Sané euh, pour qu'il redevienne neuf pour plus de cent millions mhm. maa ngi lancé euh, et c'est opérationnel maa ngi lancé la construction du, de la première banque de sang du département de Bignona euh, en rapport avec l'USAID et l'ambassadeur des États-Unis que j'ai reçu à Bignona maa ngi lancé boobu tamit xaalis bi ñëw na mu ngi trésor euh, tous les contrats sont immatriculés. d'accord maa ngi lancé le centre orthopédie de Bignona bi nga xam ne moom mooy jublu ci wàllu appareillage des handicapés parce que ku ne Casamance wax des accidentés de mine et tout et dañuy am jafe-jafe. Mhm. boobu tamit pare na daa nekk toiture bi ak euh, finition des travaux modestes ci hôpital Bignona. Mhm. Euh, boobu it maa ko tabax inauguration rek a des xëy na moom prédécesseur moo koy inauguré. Mhm. Euh, lancé naa it le centre de de de centre d'écoute des violences faites aux femmes et aux enfants. bi nga xam ne benn centre moo am ci région Casamance yëpp le centre Koulimaro. Mhm. mi nga xam ne moo jëloon en charge les victimes sociaux du batolo Joola. Euh, tey Casamance ku ko doo xam euh, le conflit en Casamance jéey yu mu fa def. Mhm. Euh, centre boobu it côté Tripano lañ koy tabax moo gën a gaaw ñu lancé tamit le centre d'écoute d'accueil des des des des personnes en déficience mentale à Togo. Mm. ñu defee ko nag ak financement AFD avec nos partenaires de Savoie. d'accord ak it euh, le centre d'expertise solaire boo xam ne mooy le troisième ou quatrième plus grand centre au niveau national bi nga xam ne décembre dernier laa ko inauguré hmm. bon peut-être on n'a pas fait trop de communication sur nos réalisations bon ñu bëri xamuñu ko <laughs> hmm. d'accord alors monsieur le ministre ba Diémé ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax yow eh, yaa ñu njëkk a jox entretien bi déjà ñuy rafetlu li nga xam ne itam moo jëm ci collaboration bi Mm, jërëjëf di leen jaajëfal di sàkku ñaan ci Sénégalais yi yëpp euh, ñu ñaanal ñu président Bassirou Diomaye Faye ñu ñaanal ñu le monsieur le premier ministre osman Sonko ndax balaa ñuy ndamoo na sénégal Sénégalais yëpp am yokkute am ba ku nekk yëg ko. Hmm. Euh, boobaa ñëpp daal di manko ndamoo. te loolu la président euh, loolu la monsieur le premier ministre wax ci looy ci la ñuy wéy. ñu dee ay jëwriñ yoo xam ne dañuy doxal seeni politique euh, bu ñu bu président définir premier ministre di ko coordonné. ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax di fàttali ni yow yaay ministre bu ñu dénk wàllum euh, liggéey ak emploi relation avec les institutions bu gouvernement bu Ousmane Sonko.